salaamaaleykum mbooloo mi xalaas maa waaru de nit dina ko wax ci eh, histoire bu doywar bi nga xam ni moom la leen indil li nag benn boy la boo xamante ni dafa dundu benn problème bu metti loolu bu yéeme bu doy waar di ab euh, téléphone boo xam ne dañ ko cee nax booy mi nag ci jëmi boppam moom daa gis téléphone bu rafet bu mu bëgg ab onze yoroon ab x daa di cay euh, euh, ni day déem a dugalante waaye la mujjee mooy suuf cent cinquante mille am dem téléphone am dem mbir mi duñ ci sori dañ leen di bàyyi ngeen déglu booy bi di comprendre li nga xamante ne noonu la ko waa ji naxee man moom damaa jommi damaa sokke si côté extension Kër Massar bi damaa demoon foofu noonu di doxi sama soxla mais ma dem ba àggu foofu damaa ben téléphone ici benn téléphone x x simple ma dem foofu ma gis benn gars yor benn onze onze simple léegi mu proposé ma téléphone bi ba ma accepté léegi mu ne ma loo ko loo ko mën a booleel ma jox la onze bi xam nga man gis naa téléphone bi te bare naa si affaire genre mel noonu léegi après ma ma ne ko waa lu laa la jox mu ne ma andi andi ñaata ay soixante dix dama wax soixante dix quatre vingt ma ne ko man instant bi cinquante laa après mu ne ma yokkal leen ma jaay la ma nekk man instant yi cinquante mille laa fi yor laas mu ne ma loo ma tegal ma jaay la ma insisté ma nekk lar laa yor mu ne ma indi garaawul léegi man ak moom après wax ñi ku ne dindi sa piis ma dindi sama compte def def si téléphone be mu dindi man tamit ma def xam nga mais parce que heure mu fa dem ay dix neuf heures que boobu xawoon naa lëndëm tuuti après biñ biñ weccoon noonu ba pare ba kenn ku ne dugal sa compte ba pare ba nga xam ne ku ne jël téléphone dem moo si des quoi léegi après ma ma jël téléphone bi def sama poche téléphone bi ma jox léegi ma jox ko sama téléphone léegi après bi ñu toogee ah bi ñu léeba ak mu ne ma waxante bu muy woon lii cinquante cinq mille lañ waxante woon léegi non ma ne ko man cinquante laa yor mu ne ma indi sama téléphone est-ce que léegi ma jox ko ma jox ko téléphone am ah jëlaat sama téléphone bi ma ko joxee sama téléphone ci diggante boobu noonu la la changé téléphone bi ah jox ma beneen beneen téléphone mais man comprendre ma. mais si diggante boobu daf ah, comme dafa mel ne dafa mel ne comme dafa am luñ ma luñ ma kii parce que damaa patiné carrément xamatuma fu ma nekk daal léegi ma joxe téléphone bi ma jël def sama poche mais bi ma génnee foofu comme nu mu mais dama laa ma ko joxee ma génnee foofu bi ma génnee téléphone bi man suuf laa ci gis baax laa gis gannaaw téléphone bi ma jox te protège téléphone boobu gannaaw onze la mais lépp mais téléphone bi suuf kese la. instant bi waaj yóbbu na samay cinquante mille yóbbu na samay eh, ah, sama sama iPhone X di al di wax alerte gars yi gis nga foofu lu fa gars yi moytoo lu ko gars yi gën a moytoo nañ ko moytu foofu baaxul foofu gars yi fa nekk baaxuñ dañuy salteel parce que loolu baaxul nit koo xam liggéey xaalisam ak dëkk bi ni méttee nga liggéey sa xaalis nga dem ñi nax la yóbbu ko yóbbu sa téléphone yóbbu sa xaalis man ma génne damaa découragé wu carrément téléphone bi fa ma taxawoon laa ko sànni imagine loolu gars yi nañu xool li ñuy def gars yi nañu xool li ñuy def na gars yi xool li ñuy def di ay kàddoom yoo xamante ni moom la ñu déglu euh, moom nag li mu wax dégg ngeen ko dafa découragé wu carrément lii day découragé wu te bari na ci Sénégal rek ñoo xamante ni ba ci ñun ñi sax di di di indi histoire yi di ko nettali ak di ko waxaat euh, dañuy dund sax kaa yu mel nii day am ñoo xamante ni ñu bari dañ koy dund kaa yu mel nii donc mu nekk loo xamante ni nañu moytandiku bu baax a baax a baax ni ñu moytandikoo nag mooy fexe ba kenn ku ci nekk ci ñun xool li ngay def téléphone boo ko bëggee ta des amis yoo xamante ni dañuy jaay ay téléphone ci whatsapp bi yaa ngi gis ñuy essayé un peu partout x nangam iphone nangam iphone nangam nga dem ci ñoom bu fekkente ne da nga bëgg def échange nga dem defak ñoom échange sa dëkk wala sa koñ ñàkkul ñoo xamante ni yor nañ fa ay ay ay boutique yoo xamante ni dañuy jaay téléphone nga bëgg def échange nga dem ci ñoom nga def échange waaye bëgg téléphone rek yàkkamti nit ki boo bëggee dara rek da ngay tey da ngay tey ak loo ko bëgg-bëgg tey ci ànd ci ak sa xol ak sa xel du moins ànd ci ak sa xel nga def ndànk te bañ ci doxee sa ndax waa ji tey jii ah, ah, ni mu ci doxee ak xelam moom moo ëpp moom moo ëpp bu ci teyoon rek def ci ndànk def ci def ci li nga xamante ni moom mooy li war kon tey ji mën na bañ a dund lu naqar li nga xamante ni moom la ci dund waaye def cee yàkkamti de trop nee na sax dégg nga ci kàddu yi waa ji sax daanaka gëlëmal na ma gëlëmal na ma mel na ni man dem naa benn instant xaw ma sax daanaka fan laa nekk donc mu nekk ay mbir yoo xamante ni dañ kaa war a moytandiku dañ kaa war a moytandiku euh, nit ki booy échangeante surtout ci marché yi affaire yooyu noonu da ngay moytu da ngay moytu si yenn lieu yi man dama fa dul dem sax ba fay échanger ay téléphone soit nu ma leen la du ma fa dem c'est-à-dire du ma fa dem du ma fa teg sama tànk su ma fa amee beneen soxla boo xamante ni bu farata la fulla la fayda la ma dem doxi ko échanger téléphone nekkul lu ñàkk farata wala lu ñàkk fulla wala lu ñàkk fayda mais day am loo xamante ni des fois nit ki da koy defal sa bopp sa à dire da nga koy jombale sa bopp man sa quand quand j'échange mes téléphones bu ma koy échanger du ma dem fii di ko fa échanger xam naa fi ma koy échanger waaw du ma dem fekk ab nit rek koo xamante ni dañoo daje rek mu naan téléphone mu won ma ay téléphone mu won ma téléphone bi impressionné ma neex ma ñu waxaale échangeante dugalante ma nee na tax données yëpp dugalante nañ ko après ma jël téléphone bi dem donc loolu doon loo xamante ni nañ ci moytandiku bu baax a baax niñ koy moytandikoo mooy képp koo xamante ni ci ñoon ku war a échanger téléphone la wala dara bon t'as des amis am nga ñu ko mën a def nga dem ci ñoom defee fa mu nekk mbir moo xamante ne mi ngi noonu ñoo ko déggandoo ñu bari nag war cee jàngatee man histoire yi ma leen di indil dama indi pour juste ngeen ciy jàngatee dama koy indi juste pour ngeen ci jàngatee leneen li nga xamante ni moom laa indi mu nekkaat beneen mbir moo xamante ni tamit mbir la euh, moo xam ne bu ngeen ko dégloo di ngeen xam ne loolu tamit war nañ cee bàyyi xel te instant bi nii xale yu baree baree bare ñu ngi leen ciy nax mooy affaire bii ma leen di tegal nii ngeen déglu ko xale yu baree bare ñu leen ci nax di ci nax seen yaay yi di ci nax seen papa yi mooy lan Euh, xale nga am nga talent nekk ci koñ di football am nga loo man kenn gis la ni dama lay yóbbu donc jàppaleel sa doom ji mu dem bis bu demee bu signé donc un mois après di nga day day mel ni mosoo def fere ci moom dara boo ci fere ci moom ay millions nu mu toll nu mu toll toll toll bis bu demee bu nekkee pro après benn weeram rek mën naa fay li nga ci def lépp lépp lépp lépp donc jàppale ko mu signé certes dëgg la benn weeram mën naa fay li mu ci def lépp mais il faut tamit ñuy bàyyi xel euh, ci euh, lu ni donc euh, kii ma leen di waaj a indil euh, donc moom benn femme la boo xamante ni doom ji ci jëm boppam moom la bëggoon mu tukki femme bi jël na xaalis bi jox na waay ji nga xamante ni moo ne ko mën naa yóbbu sa doom mu tukki léegi nag jox na ko xaalis bi instant bi problème bi mooy booy bi demul problème bi mooy mënut a jox xaalisam non affaire bu doy waar déglu leen ko. sans problème mooy dafa am suñu président AIC bu ñu foofu HLM. Mhm. léegi dama ko joxoon dafa ma waxoon dafa ma yóbbu sama doom. ma jox ko trois millions cinq cent léegi ba ma ko joxee ba léegi su ma ko woyee du ma wuy su ma ko yóbbuwaatee waaw day yóbbuwaatee ay ay ay ay ay ay ñi nekk ci école bi lay yóbbu école lan la école football seen ñi nekk ci école football bi lay yóbbu d'accord moom dafa yor école de football day yóbbu ay xale bitim réew ñuy dem foofu noonu di dem nee na parce que dafa yor link loolu la wax neen dafa yor link man dafa am kenn ku ma booleeg moom nag man dama ko waxoon sax dama koy avance moom mu ne ma naa ko jox lépp rek parce que dafa am tubaab bu muy liggéeyal léegi ba ma ko joxee xaalis bi. boobu ba léegi su ma ko message du ma wuyu su ma ko balaa nga koy jox xaalis bi euh, maanaam dafa am ñoo xamante ne dañoo waroon dem mu bëgg ci boole nga bëgg mu boole la. waaw dafa am ñu waroon dem mu bëgg ma bëgg mu boole ma ci léegi mu daan ne ma naa jox sama carte d'identité doom ak passeport am bu xëyee da koy defaral da koy utal licence ko defee mu boole ko ci ñi dem. léegi procédure bi ak waxaale bi naka la demee woon. procédure bi dama ko wax ne ko dama ko wax ne ko ñaata la ko yóbboo moom mu ne ma trois millions cinq cent. moo nag waaye comme ni mu amul kii. licence bi man loolu moom si jaaxal mu a ma non amul problème suba mun naa ko defaral licence su ma xëy suba teel dama koy jël si yóbbu ko defaral ko licence gisuma ko dégguma ko te fekk jox naa ko xaalis ba pare su ma ko woowee du jël su ma ko message du liir man tam ma dem ba sonn wax ko sama benn mag sama mag am ñu ma booleel ma dem porte ko plainte. avant nga doon porter plainte kon ba léegi xale bi amul licence. ba léegi ndeket dafa jël sax euh, passeport bi carte d'identité bi la jël ibbi moto ki mu àndaloon dugal ko ci biir moto bi ndax man ma benn xarit moo ma ne sa carte d'identité doom gis naa ko ci moto diw. léegi man tamit loolu moo tax sama gën topp chaque jour ma koy woo du ma wuyu su ma ko messager du tontu. xanaa bokk leen benn koñ. ñoo bokk koñ mais ñoo bokk HLM daal mais man exactement xamu fu mu dëkk. mais xam naa ne mooy président ASC bi. ok yow dafa am keneen ku la boole woon moom. waaw dafa am kenn ku ma booleeg moom. d' accord bi nga ko toppee di ko woo après dala mujj bloqué. waaw dafa ma bloqué te numéro am da ci def sax ne pas déranger moom rek mooy jotaat mais kenn mënu ko jot. d' léegi après naka nga def da dem police. wala waaw ma ma wax ko sama mag sama mag kenn ma dem fee bu porte ko ba ma ko porté plainte mu ñëw wuy siw na waaw moom tamit mu nangu damaa jël xaalis bi mais après dama ko kii mais dama may rek après ma fay ko. depuis boobu ba léegi nangu ma fay ànd ak tapé nañ nag dossier bi ndax jour boobu jox na ma deux millions. suñ demee dikk dox na ma deux millions waaw dox na ma deux millions foofu parce que man la ak keneen lañ doon atteeg ko koo xam dafa ko yoreloon xaalis téléphone trois millions cinq cent kooku nag man maa ko njëkk a toog mu def confortation mais dafa nangu woon na moom moo ma moom reconnaître na ci kanamu àttekat yi que ne moom moo moom moo ko 3 millions 500. waaw nangu na ko. wax na motif bi jël 3 nee sa doom bi. waaw mais mujjul antu. wax na loolu. ok léegi mu ne da lay fay da joxoon délai. mu jox ma délai na ma le 4 naa la fay le 4 décembre. Mhm. le 4. nangu ma fekk foofu noonu jox na ma ko deux millions bañ toogee police ba ba ma joxee deux millions am benn frère am bu ne léegi may ñu le 4 nañ la fay moom sax dafa woon le 30 frère bi ko dafa teel bàyyi ba le 4. léegi mu ne ma le 4 kon dinañ la jox xaalis bi le 4 joxuma ma woo ki nga xam moo ñu doon àtte expliqué ko kooku ne ma kaama ma jox la numéro ki nga xam waxoon ne dinaa ko fay. ma woo ko kooku ne ma non woo ko boo ko wooyee moom dina la fay daal dégager responsabilité man tamit su ma ko wooyee du ma ko jot su ma ko du ma ko jot ma daal di ko woowaat. ma jël beneen numéro woo ko ci muuyu ma ma ne ko diw da nga waxoon jour bi di nga ma jox. mu ne ma waa déggaatuma ko déggaatuma ko te fekk atta na ñun tamit tribunal dem nañ ba tribunal dossier yi dem na ba tribunal. yéen bi ngeen taxawee tribunal. maanaam dañ leen a atte moom dafay foofu tamit dafa reconnaître ne moom moo la deseel xaalis. moom non non tribunal waaw dafa dese dafa nangu moom moo ma jëlee 3 millions 500 waaye jox na ma 2 millions ne ko le 4 dinaa ko jox xaalis bi parce que le 23 lañ taxaw. le 4 ban la woon ci ban weer la. le 4 décembre 2023. décembre ba nii. waaw. ba léegi yow yow gisatoo ko. gisatuma ko mi ngi aslem nag gisatuma ko. ñi la doon ki la boole woon moom. Euh, moom tamit daf ko amel 4 millions 200 ki ma booleeg moom. léegi kooku tam kooku maa ngi koy gis ki ma booleeg moom maa ngi koy gis ndax kooku tam mi ngi koy topp ci xaalisam mais fayu ma fayu kooku mais dégg naa temps yi moom jox na kooku 500000. moom dégg naa ko waa ji événement bu am. nee événement bu amee fa lay dem jël di di ko wër ginaar. day jël ay ginaar korte gi jël maye tabaski tamit bu dem fi sama doom bi bu wàccee fi muy liggéey day dem si kër si xar tamit foofu ñuy jaay xar nee mu fekk fa jënd fa quatre xar yu deux cent mille di ko maye sama doom bi ñëw wax ma ko ma message aat ko bu liiree message du ma xam ndax liir na ko mais tontuwul depuis boobu ba léegi daal dama cee topp topp ba son ma bëgg mu jox ma sama desitu xaalis un million rek la ma deseel parce que jour am na jour boo xam ne yónnee woon na cinq cent mille tribunal fee dikk commissaire ba waaw yónnee na fa cinq cent mille parce que boobu euh, kii bi euh, enquêteur bi yoroon dossier bi moo ko woo téléphone waaw mu envoyé ko 500000. mu envoyé ko moom directement la ko jox 5 mu yónni kenn kenn moo ñëw indi 500000 jox ko kii bi. adjudant bi après waa dig ñoom ñoo la woo ne la euh, waa ji envoyé na. waaw ki ñu doon atte moom a moom daf ko sax transféré. ma mhm. transféré xaalis bi na ma jaru ngay ñëw bàyyi ma transféré la xaalis mu transféré mais depuis moom xanaa woowaatu ko. da koo woo ba sonn mu naan ko tey suba tey magam bi doon atte daan na waaw ne daf may woo di ma woowaat ki ñu doon ki waxoon dina ko fay kon duma ko sama yoon nekkatu ci. parce que moom li mu yore nit ñi dafa bari plus de cinquante millions la fay naa fay ba sonn sama yónnee papa rek laa bokk sama doom bàyyi la sama raq la gaa mais mu ne moom yoonam nekkoon. mooy ci tàng tàng bi ki nga xamante ne moo yëkkati woon deux millions ci poosam jox la. waaw. kon ñoom ñaar ay mag ak rakk lañ quoi. waaw ay mag ak lañu. d'accord mais waa en personne moom ba léegi cinq cent millions rek la ñu jox ci xaalis. kese ba léegi nangu ma dama si topp ba sonn woo naa ko ba sonn mujj bi sama jëkkër mu woo ko mu day bañ a jël sama numéro mu boole ñu ñëpp filtré léegi nag nga xam moom moom yore xaalis bi tamit dama cee topp topp ba sonn nangu maa jox sama un bi def te ngi jël ay xaalis di maye du puukere man sama un million laa bëgg mu jox ma ko. d' accord moom bu dee mu ngi lan nga koy wax moom président ASC boobu noonu. Mm, ñëw jox ma sama un yi des loolu laa bëgg na ma jox sama un million yi des. si mën a jàppale nag mu jàppale ma ci mu jox ma sama un danga nga da nga demaat tribunal pour wax ni moom délai bi mu la joxoon foofu noonu. waa dem naa ñu ne ma faw ma def xaw ma damay kii délibéré. ma xaw ma jël kii bi. jugement bi jugement délibéré. waaw jugement bi lañ waxoon naa ko jël mais dem naa ñu ne kii bi si ñëw ko. juge bi si ñëwul loolu. léegi ne ñaata day dem vacance naa ko may ba 16 septembre moom loolu la ma wax mooy ki ma booleeg moom. ki fekk noonu. ok danga soxla da nga soxla bi nga dañ la ne pour moom mu fay la sa xaalis il faut nga dem tribunal nga dem jëli jugement bi ngeen attee woon waaw léegi pour nga ñëw def ko lan. pour ma ñëw indiwaat yóbbuwaat ko ci tribunal bi foofu noonu pour ñu woowaat ko. pour ñu woowaat ko moom. waaw pour ñu woowaat ko moo tax fayu la. waaw. yow loolu signature nga mënul am. waaw amul signature de. d' accord léegi da nga bëgg maanaam ku la mën a jàppale ci këyit boobu noonu pour nga jot ko. waaw pour waa ji mën la fay sa xaalis. moom laa bëgg de. Mhm. waaw loolu laa bëgg. signature bi ku ko ciy jàppale a na kan moo koy dimbale ci signature bii nga xamante ni moom la soxla waaye tamit dégg ngeen waa ji ni nga xamante ni noonu la ndaw si waxee di ab président ASC moo xam président ASC woo président association woo président lu mën a doon bul jël yenn confiance yu bari yi di ko ëpp yu ëpp yi yenn confiance yi man dama ko dul def ci kenn li ba sama benn waay doon ma wax naan Fall xanaa xamu ne man sama loxo ndijoor bi sax bu càmmañ bi da koo wóoluwut wala bu càmmañ bi loxo ndijoor bi da koo wóoluwut xanaa xamoo loolu yenn confiance yu ëpp yi bu ko def ci kenn da koo jarul parce que nit yi nit yi réew mi dafa am ci ñu bari ñoo xamante ni euh, dañoo yàq euh, deru ñeneen ñi maanaam ñi bon dañoo yàq ñi baax waaw léegi segam moom dégg nga mag bi sax magam bi sax dem na ba dugg ci ba naan kii koo xam ne daa yoroon ay nit plus de cinquante quelques millions fay na fay bay bëgg a dee trois millions cinq cent la mu fayoon deux millions yi ci ci ba leen yoon woowee ci ginnaaw mu envoyé ko cinq cent mille mu dese ko un million ba nega ne ci jigéen yoo xamante ne ay yaakaarul dara li nga xamante ne moom mooy li mu amal boppam di ci góorgóorlu pare ngir jël lii kat ni da ci yóbbu doomam ngir mu tukki mën a tekki jàppale ko donc war nga ko mën a jàppale moo tax ñu bàyyi loolu gis nga xale yi di xam nga yaay ak doom dafa foor dafa foor xale yi nekkul rek ni yow li nga bëgg kut kookut kut kookut moom moo war a am gis nga doom adama boo gis yàlla suñu borom dafa am lu mu def ci moom muy euh, wërsëgam wërsëgam bul la heure bu wëlbatikoo ba ëgsi rek doomu aadama bi dina ci jot waaye nekkul ni da ngaa war ni force force force rek football bii dama ci tekki waa ji day yóbbu waate won la ay foto kii maa ko yóbbu kii maa ko yóbbu affaire yooyu noonu wala ñu ngeen toog mu woon nit ci whatsapp bi diw mi maa ko nangam nangam loolu bënn sa furu fara gi nga dem sonal sa say parent wala say parent gis loolu ñëw sonal la ci ba fexe mën-mënee la ba jàppale la ci ni dañ la ci yóbbu jël seen xaalis def ca dina dem ba gis nga xanaa xamu ni des doom dina yàqal waajurum loo xamante ni heure bu ko xoolee xel mi dem ca mën na koo móolu mbaa mu ko te loolu baaxul ci société bi baaxul ci yaay yi baaxul ci doom ji kon nag il faut faire très très très attention nañ def attention sunu yaay yi également ak itam ñi nga xamante ne ñooy di suñu parents yi ñi ñuy jëflanteel amul président ASC amul président lenn ak loo mën a doon man j'ai pas confiance aw ma confiance jéemu ma jël benn wala ñaar ba ñetti million di la jox ngir nga naan da yóbbu sama doom fii wala faa du ko def moom nee na sax ko boole woon ak moom waa ji da kaa roulé 4 millions da kaa nax 4 millions waa c'est que waa ji nga xamante ne moom moo ko boole woon ak moom na ko 4 millions kon nag kii nii ana lan mooy problème bi kii tamit mu jël 3 millions 500 waaw moom te bu paree di maye di balangal di maye di yëkkati ay ginaar di maye di may ay ay ay xarit tabaski pour lan sàmba àllar wala yow yor bor bor yu ne gaañ yu ne góoj am na ñoo xamante ni lépp lépp bañ a fay donte cent franc la duñ ko fay yaa ngi dégg maye cent mille moo leen ko gënal fay seen cent franc bor yi fay leen bor yi fay leen bor yi doy na waar mbokk yi kon ñu joxante di daje ba subaak jàmm ak salaam cas yi mi ngi noonu commenté leen ngeen partagé ko ngeen aimé ngeen wax ma seen xalaat ku ci am cas tamit nga daal di ko message ma ni ma am naa cas euh, nga daal di ko envoyé ci numéro bi 531 25 79 ou le 78 453 48 86 mbokk yi bu subaak jàmm jërë ngeen jëf